conférence bi ndax ba tey di ko mën nañu wax sax ne bii di am ba tey Sénégal fii ci département de Mbacké c'est la première fois ci waxtu gii ñuy mobiliser lu nii ci ay doomu aadama ci weeru koor. histoire daf koy retenir ni ko sëñ Cheikh Thioro waaye dama leen bëgg a laaj benn kees benn laaj rek ma ci ku leen defal lu ngeen ko mënut a fay lan ngeen koy wax ku leen defal lu ngeen ko mënut a fay lan ngeen koy wax kon nañ wax jërëjëf Serigne Touba ci ñëw léegi ci kanam ngeen xam fan laa sukkandiku pour wax jërëjëf Serigne Touba mbokki Mbàkke lii ñu am fii tey ci waxtu ji xaalis defu ko lan rek ko def mooy gam-gam gi nga am ne projet bii ñu tax ñuy sonn tax ay nit dem kasu ñu leen di masawu tax ay nit am ci ay gaañu gaañu di leen di masuwu gëm-gëm googu ne projet mooy defar Sénégal te Sénégal dee seen xol moo tax ngeen toog fii ba bii. tey bu ma nekkee kaso ga ñi jóge Touba mosuma leen xam mosuma leen gis mosuma leen teg ñoom loxo ci département Mbacké bii diggante Mbacké ak Touba ñu ñëw seet si ma ñëwaat foofu seet si ma xam nga lu mu toll. loolu nag dama koy jàppee cofeel bu dox sama diggante ak yéen te xëy na sax mu nekkoon si yéen te mosu leen ma am occasion wan ma ko ma dem ba am jafe-jafe caabi fett ma gannaaw ngeen ñëw di fa wettali te li tax ci fànn woowu man na jërëjëf Serigne ñi ko doon ñëw yëpp bu nekkee ne alxuraan mokkal nañ ko nuñ ko mokkalee fii Touba Serigne Touba lañ ko koy sante ñi ko doon ñëw di ma naan wa mak wa makaru wa makarna makran wa makaru makran wa makarna makran wala hum laa yashurun ñooñu xam nga lu tax ñu doon wax tey te fii mu taxaw tey xam ngeen lu tax ma ko doon wax ñu ma ko doon wax te njàng bu ñu njàngee fii mu mokk yii ma gi foog naan tey ku ne teg nga ci balaa may gën a nag damay nuyu sang bu tedd bi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam li ñu namoon a def bu ñu duggee fii mooy dem ziyaar ko ndokkali ko sakku ci moom ay ñaan ndax taxawaayam Sénégal ci jàmm Sénégal ak ci jàmmal Sénégal ku ne teg nga ci sa bët bu jaaxlee tey ki ñuy njëkk a dégg ci seen Muntaxa kon yal na ko yàlla may ñir may ko gudd fan lool te su ma ko santee rek santaale na kilifa diine yëpp biir Sénégal ndax seen taxawaay ci biir réew mi te nag bokk na li tax mënuñu koo gis sëñ Cheikh Thioro mu ko doon wax ndax yónnee woon nañ ko pour gis ko waaye nu mu pattu ci weer bu tedd gii lenn rek a ko yiital mooy nu mu ciy profité pour gën di ñaanal Sénégal ndax mu mën bañ a tabi ci guutal kon noonu la ñuy gërëmee xalif généraux yi di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen gudd fan lool ak weer gu yaram gu dëgër di nuyu tamit xalif général Baye Fall yi xam ngeen ne kon ak Touba wax liggéey duñ ko liggéey wax Baye Fall yi ndax sëñ sëñ Serigne Touba moom Cheikh Ibrahima Fall moo ko leeral loolu ñëpp xam ko ci kon ñu leen di sant bu baax a baax di leen santaat bu baax a baax a baax jërëjëf Serigne Touba di leen waxaat ne ñu ngi nuyu baax a baax a baax xalifu Mbacke sëñ sëñ Abdoulahi Mbacke mu sëñ Maamoor Mbàkke sëriñ xalifa sëñ Maamoor Jaara Mbàkke ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp kilifa diine yooyu yàlla may leen gudd fan may leen wërgu yaram ba taxawaay gu ñu am biir Sénégal yëpp que ñu nekk ay murit ñu nekk ay tijaan ay xaad ay laayeen ay loomanti lim taxawaay googu ñu gën ko mën di wéyal ndax bokk na ci liy sauver Sénégal bu ñu demee bay waaj tabe ci guutal dama wax sànq ne ku la defal loo ko mënut a fay dañ koy ne jërëjëf gii ñu nekk am na ay jafe-jafe yoo xamante ne am na yu ci commencé am saafara te ma doon saafara ci ay jafe-jafe yu nekk Sénégal te sëñ Muntaxa Mbàkke ak sëñ Maam Mor Mbàkke ñoo ci am taxawaay googu yal na leen yàlla gudd may may gudd fan ak wér-gu-yaram ma bëgg ci cité rek université bi fi nekk mu bokk ci université boo xamante ne tey buñ fi dee jàngal luñ fiy jàngal te mu am ñu doon jàng fii arab mënu joo dem beneen université bu ñu génnul bitim réew loolu ci ñu koy faj fii ci Touba te seen vision bu sori moo ko waral ñu boole ci nag di fi jàngale mbéy moo xamante ne département Mbacké mii luñ fiy béy gerte bu mbéyum gerte tumurankee rek loolu mën na nekk saafara goo xamante ne ñun bu ñu ñëwee ba def ci mbéy mi liñ ci war a def war nañ mën a weeru ci li ñuy jàngalee foofu ci université boobu pour soxla réew yi nga xamante ne ñu ngi jënd am ay seeni di am jafe-jafe jaay eh, seen gerte am jafe-jafe jaay ko ndax gerte gi baaxul dinañ leen wax ne bu ñu ñëwee seen si dina gën a baax engrais dina leen gën yomb ndax mënuñoo am ay phosphate bu ñuy defaree engrais ICS bii di ko defar ñu amoon yeneen phosphate ci ndendoor yi ba am problème mu engrais pour béykatu Sénégal ñuy jëlee saako engrais lu mat vingt mille vingt trente mille loolu bu ñu ñëwee incha allahu rabbi dina jeex. fii dégg naa benn waay ñëw fii keroog nekk douze nekk fi premier ministre nekkaat ministère de l' des finances su ma ñëwee dinaa problème ndox bu xamoon xamoon waa Touba mi ñu ñore xam ne ne jox wax nañu que ne yow foo nekkoon ba defoo ko boobu ba léegi ku toog douze ans deful bu la nee jox ma cinq dinaa ko def ndax dañ ko gëm kon bu ñu toogee fii yaakaar ne mën nañ leen a nax ngeen ne leen di a leen ëpp xel fuuf gën leen a sérieux fuuf gën leen a xam ni jamono di doxee fii la toog ne su ma problème mu assainissement Touba dinaa ko réglé douze ans yi fi nekkee lu tax réglé woo ko kon bu ngeen bëggee loolu dénk dénk leen ñu xool ñun ñoo leen wax ne ñun ñooy réglé problème mu assainissement Touba ñun ñooy réglé problème mu ndox Touba ndax ñoom ñu toog ak ab ab bu ñu toog ñaari mandat réglé wuñ ko di ci beneen mandat bi di ñëw ñoo koy réglé kon nañu pousse ne jox ñeneen ñi ñëw muy ñun ñii ñu wan leen ne mën nañ ko def ci lu gaaw a gaaw a gaaw ndax ñun affaire bi nag du affaire dem ma affaire sérieux lay laaj ak volonté politique boo xamante ne man ak ñi ma àndal am nañ ko ba mu mat sëkk. waa Mbacke amuñu amuñu seen fay kon takkil leen seen bopp bu baax a baax a baax seen mobilisation bi ça restera dans l'histoire de ce pays là te taarixu dina taarixu Sénégal dina ko bind te dootu ko fàtte. kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax a baax ci seen taxawaay di leen jaajëfal bu baax a baax a baax.